amee xalifa ñas mbokk yi dama bëgg ñu am kàddu ñu déglu ba noppi ci kàddoom ñu soog a dellu soit insha allah nga julli ndox moo koy fondement mooy ndox mi ngay jàppe dana dem ba nekk ñeenti ràkka waaye bu ñu sax ba ñeenti ràkka yi jeex ñaari sujjóor yu yu mujj jeex ngelaw a koy yàq ngelawal moo koy yàq walla waaw bu ngelawal amee nag jàppaat julliwaat gars yi nag lu wax ñu ne déedéet nañ julliwaat rek jarul jàppaat téere yi ne déedéet ndox koy defar ngelaw koy yàq ngelaw li mu tuutee da koy yàq kon jàppaat julliwaat lan mooy jàppaat julliwaat pare at constitutionnel jërëjëf Amir Khalifa Niass nee julli ndox koy defar waaye ngelaw koy yàq kon moom fi mu toll nii li mu wax mooy nañu demaat ci parrainage soog a suubaat ci élection yi mais Ahmed dafa am loo fàtte da waroon wax ni bu fekkee ne ñooñu ngay wax ak ñii nga tooga da nga waroon wax ni même ilimaan buy jiite bu ngelawalee du tax ñi nekk ci ginnaaw seen julli ndax ngelawal bi moom la concerné

kooku la julleem yàqu mais pas ñeneen ñi bu dee imam bi nga xamante ni moo jiital moom la njàppam toj itam moom la julleem yàqu mais pas ñi ci ginnaawam kon du soxlawaat ñoom ñëpp ñuy dagg seen julli dem di jàpp juwaat pour ñëw taxawal julli waaw mbooloo mu taxaw di julli kenn njàppam toj ca mooy utilise baat bi bi Ahmed Khalifa ñu utilise mbooloo mu taxaw di julli kenn ngelawal ca mbooloo ma tegtalewul la ñoom ñëpp seen julli dafay yàqu dañuy dem yeesali waat njàpp déedéet moom ci boppam mooy rocceeku dem yeesali njàpp kon nag Ahmed il faut faire très très très attention bëgg lu neex Macky Sall am na ci loo xam ne waru koo jar bàyyil xel fi nga bokk ñun ay doomu daara lañu bàyyil xel njaboot gi lay bàyyi xel ndax am na ñoo xamante ni yaay seen kilifa te am na ñu xorma ci yow. am nañu cër ci yow ñun bu bëgguñu sax dégg koo xamante ni fa mu ballee fa mu bàyyi ko ay cër lañ leen jox ay xorma lañ leen jox tey seen njaboot wëlbatiku di raayal état ginnaawam wala di ko fompal tànkam or am na ñu ko yaakaar sax ñi ngay souffrir mais bi ma gën a metti ci waxu Ahmed xalifa Niass xam nga li ma déggoon Serigne Moussa ci gàmmu 2016. ñi doon wax ci RTS di wax fudulul kalaam te sëriñ Moussa ni fudulul kalaam weesuwul nit ki tari aaya tari xadis te yàlla taxul yónent taxul waaye neexal buur moo tax mais Ahmed Khalifa Niass démb dafa def lu mel noonu ci li yàlla wax ci alquranul karim laa baaridin wala karim innahum kaanu qabla dalik mutrafin لا بارد ولا كريم لن يدق له احمد بفر رينا فلي جاب بزاف ام نيو تور نيو تي الله واخنا تي القران ني في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم بشي كريم با بوكل دو Ahmed Khalifa Niass bëgg wax ne Karim bu bokkul du baax tax mu bëgg indi na yàlla wax na ci alquran kon daal da nga bëggoon ne Karim la yàlla tudd foofu te même bu fekkee Karim la yàlla tudd foofu moom qabla mu mutrafiin dellul ginnaaw avant papam di ñàkk nguur gi qabla dalik Karim privilège bu ne wékkoon nañ ko ko lu ne gàlloon nañ ko ko mais mutrafin innahum qabl innahu kaanu qabla dalik mutrafin lu ne dénkoon nañ ko ko mu nekk prince ci réew mi est-ce que du loolu sax looloo taxoon bi ak ak liñ ko gàll yëpp ak fittilu gaag tixit gaag yëpp du moo tax kii nga xam ne bàyyam a ko yar mu gañe bàyyam ci élection yi moom mu xam mu trop ga Karim nekkee woon mu jël ko dugal ko ci kaso bi innahum kaanu qabla dalik mutrafin est-ce que du looloo ko yóbbee moom Karim ba tey bi muy génn sax kenn xamul lan la ñu d'accord ñoom ak seen waxtaan ca biir ba dafa génn rek jël avion dem Qatar ñaata at ba tey mënul teg tànkam fii innahum kaanu qabla dalik mais ci xit ak fetteerlu googu moo ko yóbbee li mu ne ñaareel ba mooy yow dangaa déggul sax mais dégg sax am na mais mais saay-saay baaxul ngeen baal ma ci baat bi bëgguma sax utiliser baat boobu mais utiliser alquran wala wax alquran pour neexal buur wala neexal ñenn ci say nit baaxul innum kaanu qabla dalik mutrafin yàlla waa safara ya muy wax ak ne buñ yeggee foofu sax laa baaridin wala karim teraanga sax jarul ñu ko fay séntu jarul séntu kilim jarul séntu lu sedd jarul séntu teraanga jarul séntu dara نانا كلوتا من انهم كانوا قبل ذلك مترفين بوكي هل جزاء الاحسان الا الاحسان مي غيناولو ليب احمد خليفه كوم ساي يوخي دا فاي فرال دي تود سيرين شيخ احمد تيجاني المكتوم داما كوي ديلو سي غورغ انهم كانوا قبل ذلك مترفين بوكي نيو ديلو دامو 2008 نخول مكتوم انهم كانوا قبل ذلك مترفين te la ko jiitu xam nga xam nga Ahmed Ahmed ñëwul foofu Ahmed dafa ñëw rek wax ne yàlla li la wax ci alquran xam nga yàlla dafa wax ne wa asxaabu chimal ma asxaabu chimal fii samumin wa xamim wa dhillin min yaxmum laa baaridin wala karim yem foofu laa baaridin wala karim rek la wax yem foofu léegi lu tax waxu innahum kaanu qabla dalik mutrafin ba pare nga firi lool léegi nañ dem déglu maktum ci laa baaridin wala karim في سموم وحميم وظل من يحموم يحموم دي غرب بوغا خامن خوب يي دافاي ген غاز توكسيك دي اسفيكسي نيت ني تدو ددو السلام عليكم Aleykümselam ve rahmetullah. Ziyaret var. Azili. Azili. İnşallah. İnşallah. Barakallah. Eyvallah. Maşallah. Maşallah. Maşallah.